إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين نوع يستمسك الله سبحانه وتعالى بحسن توفيقه ومنته moom it la defal tawfiq dañu jëllu si waat ci ron keppaaru xam-xam di waxtaanee saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ulaika alrijal walnisaa góor yooyu ak jigéen yooyu nga xam ni laa yujaanihim ahadun fi cheyin min addahri insha allah ay góor góor ak ay jigéen yoo xam ni kenn du yam ak ñoom ci lenn ak lu ànd yàlla am nañ ak garanti goo xam ne tanzilun min rabbil alamin ñu ngi bàyyi ko suñu borom subhanahu wa taala mu garanti leen ci garanti leen ci àddina garanti leen ci àllaaxira aw góor ak aw jigéen boo xam la tulhihim tijaratun wala bayun an dikrillah wa iqaamu salaat lu àddina jaxasoo jaxasoo lu nekk nekk ci seen activité la du dox ku seen digganteeg ci fàttali ko yàlla ko mën a taw seen xol yi di rëbërëbee ka rafet ci bëgg yàlla subhanahu wa taala di daw ay sanadaan di ko def di moytu di ko ay jërëm di ko bàyyi moo tax suñu borom soo tala radiallahu anhum wa radu anhum yàlla kontaan na ci ñoom gërëm léegi te boo fekk dañuy kon ñooñu di ay góor ak ay jigéen nekkoon ci ron kee baaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom laaj yar leen ci loxoom bu mën a yar baax dëgg dëgg dëgg dana yëg ne inna fii xamsatin la arbaa nekk toog di waxtaane ci ñooñu ak fàttali koo ci nekk ak defarloo ci nekk xomaat xomaat ak sëllinti ni muy nekkoon ci xol mën na koo indi te wax yi yàlla soo ko la aji teele la ci ci yàlla dafa taw fii nam ci moom njub muy déglu saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu doon dundee mu toppal ci jëf wallahi boo ko xoolee da ngay yëg ci sa xol ni inna hada rajul wuffiqa ila xayratin kathir ne que kii kat góor gi wala jigéen ji yàlla digal na ko ci ay tawfiq yu bari noo ngi nekkoon ñu dund kenn ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne Aïcha Aïcha comme ni ma ko baaxoon ñu ngi dundal jeex na ci ami fan sabab si mooy kenn la woon ba soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sabab si mooy dafa liggéey loo xam ni taarix ci boppam tële na ci tënk ko sabab si mooy ay njàngale yu am solo yoo xam ne dafa lëmalu ci biir yu aajoo sëriñ bi rawatina nag ci ku gën a aajowoo mooy jullit bu jigéen rawatina nag ci buntu néegu sëy maa ngi fàttali wax xaw ma ñaareel yoon la xaw ma fukkeel bi yoon xaw ma juróomeel bi yoon ndax damay baaxu fay na dikrata fawl yi ñu bàyyi xel ne Aïcha ci boppam su ma amoon baax bu gën a matale ab symbole boo xam ni jullit ñi ci boppam jullit yi jigéen ñi ci boppam dañuy téem di ko téem di ñiitu di tëggaat ci seen biir kër yi xam ne ñuy duggee su ma wax sori na waaye ku ko dégg di nga am wéy mooy Aïcha ci boppam suñu amoon baax bu gën a ak symbole dañ ko koy def nga xam ne jullit bu jigéen bu ne bu xësee dugg ci biir néegu sëy rek léegi day téem di xool nga Aïcha meloon ak nan doon dundee bu sëggee ci loolu tànk mu jéem a jëfe lool Aïcha su bopp waxoon naa leen ni bëgg gi ko yonent bi bëggoon sallallahu alayhi wa sallam ba mu yegg fu kare dëgg la bëgg su borom la dëgg la yonent bi def na ci wàll waaye nag bul fàtte ni reen ya mooy Aïcha da koo liggéey radiallahu anha Aïcha ci boppam ku fonkoon yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam ku ko ormaaloon ku ko respecté woon ku ko joxoon cër la kan daf ko defoon buur te loolu la liggéey yëpp war a mel liggéey yëpp loolu lañ war a mel na am mbokk yi xam ngeen ni ak bu jigéen bu tënku woon ci ni ko lislaam sant mu tëyee loolu wallahi góor ñi ci boppam dootuñ jàppati naqari fi abadan jigéen bu tënku woon ci ni ko lislaam sant mu tëyee loolu dama ni góor ñi dootuñ jàppati naqari fi loolu la arsa ba jàppal wax naa ne ay xadis yu bari yu ñëw ci ngëneel yi ak njàngale yëpp di jàngale su jigéen di fekkee borom kër dafa def sang daf koy def buur daf koy respect daf koy def cër xool xadis bu ràññi bii nga xam ne al imaamu Tabarani mi ngi koy soloo ci Mucjamul Kabir wa illa su ma juumu al imaamu Bazzar al imaamu Bazzar soloo na te xadis bi xadis la bu wér ndax Cheikh Nasir al-Albani wér na ko ci saxiixul jaami xadis bi Abdullah ibn Umar moo ko solo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaara ngi yoo xam ni ñaara ngi ñoo xam ni yàlla du nangu seen julli te seen julli du paase seen bopp allahu akbar boo dégloo kan nga war a dégg kan kan moo def seen jëf ju garaawe nii ba tax mu julli sonn ci lool pour ko wastami waaqil wa tadabbar déglu xool seetlu seetantal déglu wax lu baax ñaare yi ñoo xam ne dañuy julli sonn lool ci seen julli waaye du jéggi seen kaw bopp yàlla du ko mën ab jaam boo xam dafa taw aasangam ngir rëcc ngir bëgg a rëcc te jaamu julli ab julli nekk sangam mu amee moo nekk ci noonu jaamee na mu taw ngir bëgg a rëcc kooka fu mu mën ci julli yàlla dina ko dundee jigéen joo xam daa borom borom kër te fekk borom kër mu nekk ci dëgg nekk ci mooy yàlla borom kër baalalu ko fii mu koy baal julli ku mu julli di jéggi fii xadis boobu Cheikh Nasrul Albani wala xadis la wala sax jàng ko koy wér mbokk yi yan ak ngay amee julli ba mu yegg ci ak julli ni mu màggee di la sànni sànni Allah yow yàlla la ko loolu lu lu kéemaane la lu rëy la yeneen bi ci des mooy xadis bi nga xam ne imam Muaaz radiallahu anhu ñoo ko solo te xadis la bu wér ba léegi loolu sax xam jaami xadis la bu Cheikh Naakir wéral ko Muaaz ibnu Jabal mu ne yeneen bi nee na sallallahu alayhi wa sallam jigéen ku xamoon ak yi mu xamal borom këram day taaj ak taxaw pour xaar mu nekk da nga ñëw taajal ak moom mu toog di lekk yow nga taxaw ne léegi mëni ko koy gaal mu ni ko yéen da nekk daal nga defaat noonu da nga ñëw taajal ko ba noppi yow nga taxaw di ko xaar pour mu nekk yan aas nga amee nit kii ba jar da toggal ko sonn ci laaj ci amaana sa xaalis sax dem ca nga am moom moo la war a tegal dina jëf ba sax moo la koy war a defal ba pare nga amee la tax ak taxaw di ko xaar pour mu nekk wallahi kii xelal gis man bu tawee ci dañ bëgg la tawee waaye tawul dugg gi nga xam ne moom la yàlla yónni woon ci ñun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon mbokk yi Aïcha ci boppam dund kum doon dund nit kum doon dund mbir yii may wax moo taxoon sëy neex naa xam ngeen mbokk yi li tax jigéen ñi seen biir yi tëwee génne modèle yu baax ba tey wallahi al azim bu dul loolu mooy taw su jëkk si moom ñett yu njëkk yi du ca génn déglu leen bu baax li ma wax jigéen ñi sax seen jiw yi dañuy génne doom yu baax yu ceeb imam imam Buxaari imam Ahmad ibn Hanbal imam Shafii Abu Hanifa al imam al-Awzaa'i Sufyaan ath-Thawri Sufyaan ibn Uyayna ah al imam Daaraqutni ah al imam al-Bazzaar al-Haafiz ibn Hajar ah al-Haafiz al-Haytami borom xam-xam yi nga xam ne koo ci jël dundam da nga naan kii moom xam na juddoo ku yaay li tax jigéen ñi seen biir yi mënatu la génnee ci doom yu mel noonu am na sabab yu bari waaye bokk na ci sabab yi mooy ci bopp jigéen ñi premier bi sa tegoon sallallahu alayhi wa sallam ngir mu sëyee noonu dañu sëyee yàgg naa leen wax ala ubri relation bu moo nekk ci diggante sëy ak amin doom léegi gis doom yoo xam ni yaay moo ko topp dëgg dëgg jàmbaar la jàmbaar la yàlla nga liggéey la waaye daal lay tax yow daal yaay nii daal li nga ko daal ci àddina laa mën a wax daal am na doom yoo xam ne da ngay nangoo jàng bu ko gënee waaye lay tax da ngay nangoo liggéey waaye loolu daal daal moom tax ngay ñun moom daal moom daal loolu daal loolu loolu daal sa wax fekk ngay tànn waxuma sax jour noonu lay def waaye léeg-léeg boo ko waxee ba ca biir lay tànn sa yaay la tool moo tax yaay yi wallahi bu amul leen leen leen ginnaaw sa kaan su ko bu amul leen lu taxaw muy sëyi biir man sax ñu jënd ci suñu réew man si bëri ñoom dañu ne ba sëy naqari ba tax doo nga def ngay gis daw doomi la ñàkk baax coono bi ngay def ngir doomi am baax ba mbokk na nga xam ni jigéen ñi bu delluwaatoon ci melokaan way leen ñu tëj ko ngir ñuy sëyee noonu dama ni danañ génne doom yi mel ni doom yi Aïcha kenn la woon ñu dël dund loolu radiallahu anha borom téere baa ngi tàmbali ci makaratuha fi qalbi nabii sallallahu alayhi wa sallam tanfaa la Aïcha amoon ci xolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa hunaka waqfa qabla tadaxul balaa ruusu dem kenn wax ba su am solo bi moom mooy jigéen jiy déglu mu xool xalaat bi Aïcha amoon ci xool yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu fexe am xalaat bu mel noonu ci xool borom këram bala Aïcha laa koy jox incha allah bu dee fekkee ci baax ngeen nekk ndax yéen ci yàlla beneen bu jigéen bi baaxoo fekk julleen baax na wooram baax na borom këram gërëm ko dina dugg aljanna min ay yi am waaye dana incha allah moom ci àjjana yaa ngi nii ku la neex jaaram dama ne àjjana moom bëgguma bokk yaa ngi doon neex jaar waaye benn bi jaar bii doon la dégg jëru sax ñu lay tànn kon àjjana na nga dugg rek àjjana ci boppam am na makaana bu rëy ci xol yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom téere ko ñu laqad kaanat aïchatu radiyallahu anha تحتل مكانة عالية في قلب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم من لذلك يقول الإمام الذهبي عن مكانتها ومنزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم فما تزوج بكرا سواها واحبها حبا شديدا كان يتضارب به بحيث ان عمرو بن العاص وهو ممن اسلم سنه ثمان من الهجره سال سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الناس احب اليه الى رسول الله؟ قال عائشه قال ومن الرجال؟ قال ابوها. وقد جميلتي سير على البلاء وحافظ الامام الذهبي ترجم عائشه. mu ni Aïcha ku amoon xalaat bu rëy la ci xol yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu lu am solo la fexe ko ba sa borom kër bàyyi la xel yëg la di la xalaat yërëm la sopp la mu ni Aïcha day gën dëgg occupé woon maanaam taxtan dafa occupé woon xalaat bu xew bu rëy bu cher ci xol yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni bokk na ci li koy firndeel al imam Zahabi ci boppam boo delloo ci téeru alaami bi bala mi tarjama al xaafis al xaafis bi mi tarjama Aïcha dafa wax ni Aïcha de amoon na xalaat bu rëy ci xolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci la koy wax mooy fama tazawaja bikran siwaaha yonente bi amul benn soxna bu nekk jàng ku dul Aïcha ñi am yëpp xam na ñoom borom kër jël nga naa kàrkan yëpp la ñëpp yonente bi ñu takk yëpp am borom kër wala Aïcha moom la ci takk bu nekk big bi moom amul am borom kër kooku ci ay jagoom la bokk man bokk na ci lim daal damoo sax moom Aïcha radiyallahu anha loolu dafa doon tudd te naan jubluwuma ci dama te loolaay lay am yéen bi bëggoon na ko bëgg koo xam ne dafa jéggi daal ba dafa bëgg ñëpp ko xam waaw léegi moom ñun dañoo jàpp ne jiw jiw la gën a bëgg ci ay jabar loolu boo ko waxee ak gàcceel loolu du gàcce de loolu du gàcce dama ne benn góor bu mu bañ ku la ko waral bu fekkee dëgg am naa ittee dawal li am kay balaa tax sama ko jiw jiw la gën a bëgg ci ay soxna dama ne loolu buñ bañ ñu ne ko xatu laa jëlee jërul ndaw rek jërul daal ndax Aïcha ci boppam yonent bi da koo bëggoon a bëgg bi dafa nekk lu kër ñëpp xam bal kay li lay def mooy nga bëgg kenn bëgg koo xam ne dafa kër ba noppi nga jeng jëm ci moom bu ko lam ñu wax it bëgg yaa koy wera yi ko di ko xool di ko wax loolu la ñuy bañ loolu l'islam di bañ loolu mooy jur ay jafe-jafe waaye jiw la gën a bëgg bu jël sa xool la ci yëpp yëpp loo xam ne yàlla moo ko doon weex na nga koy nëpp nëppal pour bu kenn gis weexaay yàlla moo ko weexal ngay weex bàyyi sama daam yoo xam ne jërum suñu borom la jërum sax ci tool demal defe léegi te nga jóge boobu kon yéen bëggoon na ko bëgg boo xam ne bu fekk Abdullah ibn Amr ibn Al Abdullah ibn Amr ibn Al baayam mooy Amr ibn Al Abdullah ibn Amr ibn Al baayam mooy Amr ibn Al Amr ibn Al yéen ci sama laaj yéen ci sama salaam te am naa mu ngeen dana sama yéen ci la tuub ak juróom ñaari at ñaata la fi yéen bi def jóge ñaari at la fi defaat juróom-ñett juróom-ñeent yaa ngi juróom-ñetteel juróom-ñeent ku yàgg bu baax sallallahu alayhi wa sallam kon xam nga lii ñu nekk ni kon yàgg ak faatu am na yoo xam ne am am nañ dina am ci borom bi tuub ak juróom-ñetteel nee na damaa laaj yàlla ci benn bis ma occasion quoi yéen bi àddina bi nit ñi nit ñi laa wax koo ci gën a bëgg mu ni ko aaj allah kon nit ñi yëpp koo ci gën a bëgg mu ne aaj mu ne ko waxuma ci jigéen ñi de góor ñi laa koy laaj mu ne ko bàyyi radiallahu anhu xoolal dana si génn gaal comme ni ko war a wax koo gën a bëgg mu ne Aïcha waxuma ci jigéen ñi de góor ñi tax may wax mu ne ko bàyyi fa kayfa laa yuhibbu abuha wala abaha naka lay def ko bëgg bàyyi kii laa gën a bëgg kii la bëgg muy wax ak yàlla dañ koy bëgg mu bëggaale lépp kii la bëgg dañ koy bëgg a bëggaale lékkool moo tax gis nga bëgg ndax day waar ne mbirum kéemaan la am na benn waxkat day daan waxkatu arab boo xam ni day daan loolu sax ak tàmm ne la waaye nag dama koy nikkili ngir war na bëgg bi muy yegg benn arab yi benn arab yi dafa bëggoon ab xale bu jigéen xale bi dafa ñëw muy dama kaa bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg ah ba ñuulaayam bi sax tax na xaj bu ñuul su ma rombee damay kontaan subhanallah xoolal dama kaa bëgg bëgg bëgg ba xaj bu ñuul ndax li ñuulee xaj bu ñuul su ma rombee sax damay kontaan ndax daf may fàttali ñuulaay gis na daal na fekk mu fekk ci baax te bu àggee foofu it nag baax ba mu ngi noonu beneen bi dee mooy moo tax alxaam alimam zahabi déglul li mu ci def mu ni wa hada xabarun sabitun ala ragmi udufi rawafidi وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليحب الا طيبا وقد قال لو كنت متخذا خليلا من الامه لاتخذت ابا بكر خليلا وقت كنت بمجي القائل من فمن ابغض حبيبي رسول الله فهو حري ان يكون مغيظا الى الله ورسوله. الامام الذهبي من يجي nekk la ba siiw bu bët boo xam ne ñëpp ba ko xam ci wér na comme naqari na bu yàlla nga dee xam nga waxal bi comme di ko mooy rawat bi chia ak chia ñi nga xam ne dañuy bañ Aïcha di ko ngañ ñoo ma wax nii mu ne comme naqari nga dee ala dax ni bu dul rawat comme naqari dee la loolu nag suul kenn du ko demee tey da ngay suul la suul ba yegg kenn gi dem jant jant ba dem ba ca kaw jàll kon gis mu ni moo tax yëpp yàlla ne su ma amoon ku may jàpp bu nekk sama xarit damay tànn Abubakar ci xeet bi waaye nag mbokkoog lislaam gi moom ëmb na loolu far na loolu kon la jaabu mooy yonente sa sallam bëgg benn waay wala yonente su bëggee benn waay ci xeet bi bëgg ko gën koo bëgg doonu ñu bu gën koo bëgg mu ni kon nag fa mën a awa ko képp ku bañ xabibay rasulillah ñaar ñoo xam ne ñoo nekkoon soppe yoon sa sallam mu ni foofu wax xarijun an yakuna maridan ila allahi wa rasulih dëgg dëgg kii yay na mu nekk koo xam ne boo koy xalaat da nga ne kii ku yàlla bañ na ko yonent bi bañ na kii nga xam ne moom la yonent bi gën a bëgg yow nga bañ ko ñaar ñi yonent bi gën a bëgg yow nga bañ leen mu ni booy classement ñeenti ñaar ñi ñoom ñoo neel ka def loola koo xam ne yàlla gën a bañ nee na bu am loo ci tàkk ci loolu nee na wa xukumu li Aïcha kaana amran mustafidan imam sa ba léegi may wax bu ñu bëgg ci yeneen ci bëggoon Aïcha dafa siiwoo na siiwa siiwa siiw ba nit ñi xam mustafid mooy jaar xam ko xam ne na ah saxi saxi li daati xasan xasan li daati mashhur am na ko ci tuddee mustafid mu ne hada mustafidan dafa siiwa siiwa siiw ba ñëpp xam mu ni ala tarahum kayfa kaanu yataharrawna bi hadaayahum yawmaha taqarruban ila mardatina ila mardatina man nag bii nag mooma ci yéen bal saxaaba yi bal nit ñi dañoo xamoon loolu ku amaan lu mu bëgg a jox yonente bi kala day bàyyi ba ay sa ay allahu akbar lii moom man ma ci yéem moom dafa demoon ba Madina ci boppam demoon ba saxaaba yi ci boppam dañoo xamoon Aïcha fi mu tolloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ku bëgg santaan loo yonent bi soo amee loo koy bay da ngay bàyyi ba ay sa ay subhaana malik al qudus wala kon nekk de ah léeg-léeg daf daan bàyyi ba ay bal sax bal sax mi ngi ñëw ci kanam na bi waaye bu mel nii bal sax demoon na ba ñeent ci soxna yi sa salam loolu xaw na leen a metti bañ jugoon di ci def ay jéego comme nañ defoon ay jéego ci dàq ba la baat waaye nag lii nit maa ngi daan ka waat ba léegi du sabab bu taxaw mukk yonent bi jéego bu ay sa sa jàpp lu soxla meeta yonent bi ni ko niitee te te ay soxnaam ci boppam ñoom ñoo seere ni yonent bi ñun yëpp la yabale woon ci maante bi li yàlla bi kon loolu moom jeex na loo xam ne ñoom kenn jéedewul ay sama ma ko seede moom defe naa boobu jël suñu ci comment andi commenté kon jigéen bi nan lay fexee ba yegg foofu borom këram est-ce que du ma jub nag ci sonn ah wuti wuti yëre fee maquillage fii poudre fii jënd jënd lii fee jënd engrais fële jënd lële fële lële lële ngir ñëw borom kër jënd kese yàlla war a jiitu ba loolu laa bëgg a wax damay fexe ba li may defal yàlla damay mokkal yàlla rup usallimu lillahi tasliman damay mokkal yàlla rup nekk jaam mooy ñëpp xaashian xooban mutawaadian lillahi rabbil alamin moom du ko wax saa yi ñeret nga xam ne jooju jaam muy gën a mooy tay sa diggante sa borom mbaa xam nga ne li gën a kéemaane mooy boo melalu sa borom loolu loolu doo ko melal sa borom kër mbaa boo ko melalee doo ko jëriñoo istameer déglu bu baax li may wax li li may wax lu ay waxante li may wax lu leer la ay texte la dama ne nii ma wax doo ko defalul sa waaw doo ko mën a defal sa borom kër léegi si ci ko defal boromam si ko defal borom këram dëgg la mi ngi koy def waaye du ko jëriñoo après bu paree lu aw métit la cay jëriñ moo tax fiq boobu ak am solo jigéen ñi di ko bàyyi xel moo tax naa wax ne maa ngi doon waj wajittu maa ngi doon libit dundu Aïcha karam pàcc yi ci nekk allahu akbar ay borom xam-xam wàcc wasaare ko nit ñi dégg ko surtout jigéen bi ndax ay jàng yu am solo ci nekk fexe ba ak am makaari sama am ak sama borom kër ma am makaari ci xol ba nit ñi xam ko xool la Aïcha ba nit ñi xam ko tey bu fekkente ne damaa am daam ak tàndal comme yow loolu ëppoon li ñu amoon daam ak tàndal na ko may maye ma ñëw tey yore lu fekk ay ay dama koy yóbbuwaat sama kër bu ñëwee dinaa waataati suba dinaa waataati suba bu yaayee dina waay jaral ma bàyyi ba lu ma yàqal ci yàqal naa dinaa waataati suba ngir yóbbu daal ma tàngal rek xam nga lu mu ci jublu mooy yëru tàngal rek ay dafa bëgg ay solo ba bëggeel bi yegg ci dañoo gëm ni lu ko waaye defal rek dañay kontaan rawatina nag bu ko taamoo ci ay ay loolu saxaaba yi ci ma ko xamoon nañ ko ridwanullahi alayhim ajmain moo tax Amar ibn Xattaab Amar ibn Xattaab dana wax xasan am yow lan lan la sa yoon sa sa sa wujj moom la sa borom kër gën a bëgg waaye sa yoon wax toll na waaye gis nga Amar loolu la wax xasan radiyallahu anha Aïcha ci boppam benn bis dafa laaj yéen bi dafa man min azwaajika fil janna waa kan nga yaakaar ci soxna yi mooy dugg àjjana kon famit ñëw ndax ñëpp ay dugg mu naan kan mooy dugg mais daal ñooy dugg ku dugg ku dugg te fekk ñëpp dana dugg incha allah kan soxna yi mooy dugg àjjana yéen bi ne ko ko dugg dugg dugg daal waaye am na innaka minkum yow moom si ñuy dugg ci ngay bokk wax ko ngir teel ak xolam ah Aïcha mu ni ko uyyina ilayya anna dalika li annahu lam yatazawwaj bikran xayri ma kontaan bi ma ko waxee ndax it nag amul benn soxna loo xamante ni ab jànq la tudd xanaa dëgg la ne tele danañ bokk ci ay soxnaam si àjjana incha allah Aïcha ba léegi mu ni qultu ya rasulallah man ahabbu nnaasi ilayka allahu akbar yonent yàlla nga ne Aïcha Aïcha dana yonent bi kan nga gën a bëgg ci nit ñi ku kolaale laaj boobu dara ah Amr ibn al-As moo kolaale tey nag Aïcha ak kolaale xam nga bi ko Aïcha laajee la ko yonent bi wax nga ne ko wali pourquoi nga posé ma question bi ma laaj qultu li uhibba ma tuhib mu ne ko damaa bëgg nga wax ma li nga gën a bëgg ma bëggale la ko yonent bi ne ko te Aïcha la wax mu ne ko Aïcha laa gën a bëgg loolu dafa mën ko bëggalee la kenn nga gën a bëgg yow yonent saa salaam mu ne ko pourquoi dama ko dama kenn yow ko mu ne ko dama bëgg taamu ma ni gis nga xam nga dama ni ci xadis bi bokk na ci li gën a tax ma ni ci ko du fekk ko ci téere bi doon déedéet bokk na ci li gën a tax ma ni ci ko mooy aay ci boppam tegtal ñi ma doon wax sànq naan la da koo liggéey lii ci la def lii xadis ci tegtal ñi lay wane da koo liggéey ngir ndax dañu ko wax ma li nga gën a bëgg ma bëgg la li nga gën a bëgg kon bokk na ci loolu yi borom kër soxnaam amee ko mooy xam li mu gën a bëgg kii lan la gën a bëgg ak am solo ak am solo naa bu doon waaj sax ci dem dañuy xool lu du bala xam xanaa la gën a bëgg nga doon ko sax ci ci wàllu lekk la ñuy xool lan la gën a bëgg li nga xam ni kii bopp moom boo ko defee rek moom daal lan la gën a bañ ma di ko daw ci raar yi ñu naan asal sama borom kër li mu gën a bañ dama koy daw comme ni may dawee sama bi jege léegi nag moom léegi moom daanaka moom moom asbax xaaral maadi léegi moom la nekkoon président moo nekk passé jigéen léegi te moom mel ni li gën a naqari seen borom kër la ñuy sax koo am pour di ko toog li mu gën a bëgg la ñuy daw boo ne ko huwa mu ne yee boo ne hum na mu ne hum kaay jaar fii ñu man bëri laay jaar tey lii mooy li ñuy dund ndax wax comme yaa ayu ne naa ñu ngi koy gis ñun ñëpp moo tax loo gis الشقاق والنزاع والتنازع خيرو نعيو جبل أي كله حجم مني ترجع أصول ترجع أصول إذا ترجع أصول بيني كرهي لذا جنون لا يكره كنت بتاع جلد جيجي جي ما أقول كره لون كره بك يلان لك لك am na koo xam ne moom gis la ngay topp yàlla moom ci mu ko yegg yegg ko kenn moom bu ñuy fekk la nga yor yéen di jàng maa ngi ñëw fekk la ngay julli rek parce que daaw na yéeg na fa mu bëgg a yegg fa maa fa ma bëgg fa ma ko bëgg a yóbbu moom yóbbu ko fa yow am na koo xam ne al kalimatu tayyiba la soxla kàddu yi ñëw rek moom mën naa ne xam daal ci yéen doon yoon masa masa coono nangam nangam yàlla yàlla dëkk bi de ah parce que li yàlla bi day nee na yii yëpp yiw la léegi ah yéen a yow la ñuy yow la xam nga gañe nañu yow yéen dañu la yëndoon lépp ak ñu la jox ñëpp mu àñ bu dee ci yéen ah yow man yi man de yàlla damay ëllëg gis nga su ma leen commencé di wàcc gis nga kalimaatu rab roxo kaat yoo xam ni dafa jël nii mooy ñëpp ku ko tere ku daa bu ma wax ku ko tere daa bokk ci lislaam gi laa wax wala nga wax ku ko tere ci lislaam gi la bokk loolu al kalimatu tayyiba sadaqa kan moo ci gën a yee sa borom kër baat bu ñeex te nooy wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan seetal baat yi gën a nooy balaa sa borom kër ñëw ba xool tey moom tey ban ban ban ban leçon laay jaar bu mu ñëwee ba tey tey moom ba ba ban kan saawa laay jaar bu bokk na ki ma jaaroon fii maanaam saa bu dikkee rek daf may fekk ma bee sax ak am solo noonu la Aïcha meloon radiyallahu anha dana xool yéen si li mu gënoon a bëgg moo tax mu ne ko wax ma lan nga gën a bëgg mu ne ko lu tax nga laaj koo gën a bëgg mu ne ko lu tax nga laaj borom mu ne ko ngir ma xam li nga gën a bëgg wala ka nga gën a bëgg ma bëgg la la mu ne bu ne ko li nga gën a bëgg da koy bëgg la ko kon loolu moo lay wan ne jigéen di jéem a xam asal lu ñu ñëw ka lim bi ci borom këram lu mu gën a bëgg mu di ko ci fekk ci lu am solo la maa xam ngeen gis nga bëgg gi yonent ñu bëggoon Aïcha bëgg ku mel noonu jigéen ci fexe ba am ko mataan sa xolu borom kër wallahi gis nga bëgg mbir yu kéemaane la gis nga da lay topp ba topp la ci say sën ci say sën gis nga sa soo góorgóorlu ba liggéey bi ci sa borom kër da lay bëgg bëgg sa baay bëgg sa yaay bëgg loo bokkal mañ loo mañ ah may la sa sër sa sër soo amee doomu jigéen doomu jigéen di màgg ba dem këy am fa doom am na bët dama ne nii may wax am ngeen ay bët comme ni ma amee ay bët ku ku nekk fa nga jógee rek dama waxoon ko seetal jigéen joo xam ni mel na noonu ci borom këram nga suivre ko xool ba ci ay sëtam da ngay gis borom kër gi bëggeel ko dafay def ay fermier da ay cax ba day toog say sët laa say sët allahu akbar moo tax jigéen ji war a góorgóorlu ci loolu li ci jiitu nag mooy am ci mardaatu rabbina subhanahu wa taala beneen bi ci def mooy jigéen ci boppam mu xam bokk na ci li gën a tax mu am lu mel noonu mooy gàttal bi ci def bonul sax loolu nag ma ak asati shadid ndeysaan lépp suñu borom a xam-xam duñ la ci waxal li ñu tuddee unul sax unul sa mooy ak liggéey léeg suñu benn bàccee damay dégg damay dama danaan faral dégg boo ne boo yónnee xale bu jigéen mu def ba pare nga ne ko waaw kon bu ñu bañal lànkal dañ la waaw jigéen ndax boo góoree rek yàq aka wax dëgg bu ne waaw góor bu ñu bañal de na la wax waaw jigéen bu la wax waaw góor ndax bu ne la waaw góor bi nga góoree rek yàq aka wax dëgg gis nga laaj yooyu li nga nekk bala dañ koy jéggi dina dina dina dina xoolaatee wax ndekete loolu dafa ëmb ay maani yu yaatu wax na dëgg li ñu tuddee ulul sa muy ak jigéene yàlla moo kii maa ne subhanahu wa taala yàlla dafa tax ku ñu tuddee aadama ak ku ñu tuddee xawa aadama nekk góor nelaw yeewu sunu borom daal di koy rokkee ci paam ca la gën a suufe gën caa dem bind te ku ñu tuddee xawa li li may xadis la bu wér li mu yeewoo mu yëkkati loxoom teg ko xalaat kay daal kala waaw ci lu dul mu ne pour man la dañ ko indi pour man ñu ne ko trop pour yow la mooy pour ma wéttali ko ci moom ñu ne ko waa nu aadama ko tuddee xawa aadama mu ne ko xawa ñu ne ko lu tax tuddee ko xawa mu ne li annaha xuliqat min xayin ndax dañ ko bind ci lu dul ñu ne ko wax na dëgg xuliqat min xayin xawa xuliqat min xayin waaye suñu borom jàpp aadama def ko mu ne góor gu dëgër loxo yu tax amul sikkim amul mustaam ñoon def taw affaire yi loxo yi am doole yi nga war mu góor ñi nga baat bi dëgër xuur mu am fii benn xaw ma ni ngay waxatee gis nga bëli yi bëli yi génn nga xool tànk yi gis moolee la ñu ko nga gis gis nga mu jum ci nga xool tànk yi sëb sëñ yi dafay dëgër rëcc ñuul bukk mu yor forme góor mu yor forme góor moo tax benn borom xam-xam day wax ni gis nga yenn njàngale islam lu ne nañ yar lii mu ne mu ne islam bu ko diglewul woon sax dañ ko war a def ñu ne ko tax mu ne boo ko dindee dañuy ñëw sa jabar dañ lay jaawale sa jabar waaye wax na dëgg moo tax njàngale sa lu am solo gis nga yàlla ci jigéen def ko mu nekk mu ne lii amul sa amul sikkim yaram bi nooy loxo yi nooy day taal bu la doon doon pour bañ sax yëngu ngay daw ndax boo mu saa du du doon du doon baax gis nga melokaan bi yàlla dox dafa nooy kaddu yi nekk kaddu yu yu tooy yu yëmbale parce que noonu la baaxee ah waaw bu fekkoon ne courant bi ñu andi police andi wàllu police du tax police moyen ak moyen du tax faw police ak moyen mu doog nag suñu borom jël góor jëf ko mu mboq muus ñox ñaw yew gis nga jigéen ñi yeewu yeewu yeewu jigéen ñi ñuy wax dugub fii ci buntu boobu góor moo gën a mat xel ndax yow moo ko waaw bu fekkoon ne yàlla daa jël xel ma jox ko sa jabar bi comme ni la ko joxee yow moom koo ci ah boo ne comme ni ma ko waxee boo ne moo mun fii nga ne fii mu ni fële nga ne ñii mu ni lële du sutti moo tax yàlla subhanahu taala def ko mu nekk ku nooy buy wax ak yow kàddu yi day nooy buy wax ak góoru jàmbur nag fekk yow sama góor kàddu bu dëgër boo xam ne dañ ko koy wegee kenn ku am borom loolu su muy jaar boo ñëw ci moom ah bu nekkee ci kanam góoru jàmbur mel ni sa waay kay dañu toog nag fan lépp bu nekkee ci kanam borom këram day nooy ba mel ni ku tëjal yekk ba mënta gis dara ah dara nii la boo ko defee rek am mel la Aïcha radiallahu anha kon li ñu tuddee ak unuu sax muy am jigéen ne jigéen ci dafa war di sàmm muy nooy ci kanam borom këram di taamu ay baat yu nooy di sàkku ngërëmal ginnaaw bu sàkku ngërëmal borom bi subhanahu wa taala gis nga gis nga lii boo ko defee chaque jour da ngay dee sax dama ni bu yee amul ma ci ànd léegi mat na fukki at ak juróom amul mat na fukki at ak juróom benn déedéet loolu amu ci amu ci de lii bala nga lii bala nga xam demal ba aas bi mu mujj ba ñuy nekk jaaree demal jël ba catégorie bu doon dund lii may wax nga xool léegi da ngay gis ni chaque jour dañuy dee sax dañuy mel ni ñaar ñoo xam ne sawaay démb lañ commencé am te moo ne ko defee jaaw si saa am naa dara ak juróom ñoo nga xam ne dañ ay gone kon mbir yi mooy topp nit di ma topp ci ay sëtam comme ni ma la ko waxee kon pour ñu sa boobu jar a sàmm beneen ci rek mooy bokk na ci sàmm pour ñu mooy yow li nga am lépp baax na gis nga jigéen ñi li tee ñu mën a am mbaax bii ma yox ba léegi mooy dañuy xool daraja yi am am na magistère am na xuma bac am na lii am na xuma nu xuma bac plus quatre plus yooyu yëpp dama ne la bac plus bac plus plus plus yi amul benn njëriñ plus ak mooy ci bopp ya te kanam moom kër moom amatoo dara amul benn diplôme xaw ma diplôme lay am mooy diplôme mokk ruux ci kanam booba da nga mën a am moom mu baax de sa borom kër moom dama ne am nga oto am nga kër ak am nga diplôme ak am nga magistère ak am nga kii am nga laa yooyu yëpp dama ne la yooyu diplôme jëriñu ci booy sëy de mais diplôme dama moo la jëriñ nag mooy moom mu ci kanam ba mu yëg ni yow mii kat pour mu sa daa ci yow muy am liggéey rek allah maa ngi joxe benn jigéen bu ñuy wax Fatima soxna kan Omar ibn Abdul Aziz subhanal malikal quddus xool jigéen ji Kuba bi ñu ëndaale buy te fii ak kooku mooy kan Fatima doomu Omar ibn Abdul Aziz la soxna Omar ibn Abdul Aziz gis nga alxaafid ibn Kathir alxaafid ibn Kathir boo delloo ci albidaaya wa nihaaya ma nga fay nettali loo xam ne jigéen ju ko dégg da ngay jiit sax yow naka la ko boobaa bi jigéen man koo am ba nga wàcc nooy mu ruma ko jur lim jur parce que ñoom ñoo doon dund mbir yi alhamdulilah kat yi boo demee sax ma nga jëlee wax wax benn bay ah mu ni bintul xalifati wal xalifatu jadduha moom kat doomi amirul muminin la nga jël askan du dem ca maamam maamam amirul muminin la mu ni uxtul xalaaiq ak xalaaiq am nañ xalaat yi am nañ ñett frère yoo xam ne ku ne amirul muminin la dégg lu mu rek mu ni wal xalifatu zawjuha ba pare mu am borom kër bu nekk amirul muminin subhanallah al azim sa maam amirul muminin sa baay amirul muminin sa sa borom kër amirul muminin nga am ñetti sœur yoo ñetti frère yoo xam ne ku ne amirul muminin la waaye lii yëpp ci ay diplôme ah Walid bin Abdul Malik ak Hicham Hicham bin Abdul Malik ak xaw ma kan ñett la Abdul Malik ñoom ñettee kay amee waaye xoolal loolu lépp ban bi muy ñëw lim andaale ci or alxaafis na kat yi mu ni bi muy tëj lim andaale ci or boo ko jëloon posé ko nga jaay ko kan ngaa fekk comme exemple suñu taal daal nga dëkk ba Dakar boo ñëwoon Dakar nga ni nga ni nga ni nga ni Médina ci boppam laa bëgg a jënd kër yi ci ne léegi li ma tax ab dëkk mën naa jënd dëkk da nga ñëw Medina nga ne Medina laa bëgg di jaay ko yëkkandi ci ay or bala ko amoon yegg ci or ya nga xamante ni moo bàyyi ko te maa yetu dëkk yi xam ngeen kooku mooy tam mooy soxla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci juróom Ibrahim di law di law di law toog or yooyu yu koy doon nga xam yu gënoon la ci ro ay loxoom la mujjee waaye yëpp na ñëw ba ndikkee nekk jaare nopp yi nekk suuf nekk lam nekk suuf sama moom amirul muminin waaye loolu may nekk suñu kër la am naa ñetti frère ami boobu ba may nekk suñu kër la sama borom kër amirul muminin la moo tax damay nooy ñëpp nekk ci borom moo tax mu mel ni mu nekk radiallahu anhu gis nga kon jigéen ñi marché bu ci mën ci am na xam ni jigéen la garde unuusam ak jéggal borom kër moo koy lay lu mel nii moo tax Aïcha radiallahu anha day nekk ni mu ni yéen si mel ni daa dugg ci man bu fekkoon nay jooy mu ne ma maa yëg ay lu lay jooy lu lay jooyloo ah kaka jooyloo yëngal na xol bi sallallahu alayhi wa sallam laa xam nga ni li nga gën a bëgg ko kontaan la danay kontaan la waaye ku ko merloo rek merloo ah Aïcha yeneen na ko fekk ci biir néegi mu toog mu toog di jooy mu ni ko Aïcha looy jooy mu ni ko Fatima moo ma ngaañ mu ma wax lu ma war a wax kan la Fatima donc kat yéen saxal bala maa ñëw ci Aïcha damay wax kan mooy Fatima xam ngeen kuy Fatima moo nekkoon benn doom boo xam ne yonent bi fi mu àggoon xol bi ci bàyyi yi kenn àggu ko ci ay doom kan dana wax ni Fatima bi waatu min ni di nga ji sakit la mu bokk ci man boo ko toppatee naa ko yëg xanaa kay sëbi mën a bëgg ba ne yàlla Fatima aw sakit la ci man boo ko toppatee maa yëg metti bi boo ko gaañee man ngay gaañ garab ba Ali ibn Abi Talib na nan ko wutal wut foofu la gars yi dañ ciy faral di sukkandiku waaye sukkandiku gars yi mbir nay leer de da koo nar a doon wutal wujj yonent bi xaj waaye pourquoi parce que wujju yéefér la ndax doo ne abu jahl yonent bi saa sallam ne ko doomi ci yàlla gën a noonu ak doomi soppe bi yàlla bi duñ daje ci ron genn masa doon seetal mooy def te la ko waxee woon Fatima doget na ci man la koy metti moo may metti ku ko doom war may yëg xoolal ko fi mu toll yonent saa sallam parce que dëgg lu mu woon yonent ba bu daan dox bu la wanee ginnaaw boo xamee doxin yonent bi da nga naan ci yonent bi ko jël sallallahu alayhi wa sallam ndax aw doxi la sax da koo jël moom kon ko nag Aïcha looy jooy mu ne Fatima maanaam naa ngi yonent bi ni Fatima wu ñëwal Fatima ñëw mu ne ko ana ñu ko xib bii dama ko xib waaw Fatima yow loolu la xanaa yow doo bëgg sa doo bëgg la sa baay ki bëgg xaalat naam yaa rasul ne baa am kay baay baay ki nga bëgg kay dama koy bëgg xaalat ma ini uxibu aisha dafa axibha man sa baay ma ne kii sama soppe la boo bëggee sopp la ma sopp soppal ma kii loolu Fatima lu ko wax mu ne ko laa aqulu li aishata shay'an yubdiha abadan mu ne bis ni ki tey benn baat bu mel ni Aïcha dootoo déggati mu génn ci sama génn alimamul Aïcha bi mi ngi nekk li riwaaye boobu te riwaaye la boo xam ne bu wér la kon mbokk yi Aïcha su ma ko amoon na makaara boo xam ni ah xanaa génn rek tax nga am ca tuuti waaye daal bu mel nii moom moom ñu ne si koo amati moom Aïcha radiyallahu anha Amir bin Xaaris ibn al-Muttalib dafay nekk li muy ziyaar te nekkoon ndawal amir ca Madina dafa am ay mbir yu doon tëgg la xam nga ñoom dafa bu ñu tax dem xare ba ñëw bu yent bi faako bu ñu mësaa dem xare ba ñëw bu ñu amee am màngal wala ñu am lu ñuy joxe sédd sax na yenn fasal léegi yaa ngi séddale nag dafa wax nan ko joxal Aïcha yii prix maanaam bu ñu doon jox kenn ku nekk fukki junni ñu ne joxal la Aïcha fukki junni ak juróom ndaw li daal ñoo di umu salama ni ko ah kilifa gi ne nañ ci jéggalu kat ndax lii moom moo ko tegal Aïcha mu ne ko ah loolu de amul solo ñun yëgaloon suñu yaram loolu ndax te ko gën moom daana fonk yonent ni fonk Aïcha fonkeel bu rëy ci suñu kanam waaye loolu tekkiwul mooy dafa doon jox lu ëpp la te waaye boobu suñu wér la Aïcha radiyallahu anha ni yéen bi bokk na ci ni mu bëggee woon mu ni kuntu ashrabu wa ana xaafiqu léeg-léeg Aïcha day gis baax الفضل الشديد على سافر الطعام ginnaaw bu ñuy ñëw wala wala wala wala wala poids bu ñu bu ñu misri defar ko ba mu dal na mu war a mel amul ñeex te yaa war a am ñeex gis nga ñun ñu fi bëggee waaw tam ci ko ñu ngi reer gis nga mu ne ah sa ci boppam noonu la mel ci jigéen ñi la la toog bu ko daa yeneen toog bi la muy gënee noonu la xam sa gënee yeneen ci allah Fatima ci boppam nee na benn bi ah ci beneen bi waaye nii dafa wax Aïcha lu ko warul wax Aïcha mère bi la Aïcha mère yëpp déglu ko amma tardina an takuni zawjati fi imraati yow loolu loolu wax dëgg yàlla yow dama gaaw a lool xanaa bëggoo nga bokk ci samay soxna fii ci àddina bokkaat ci samay soxna bëri ci àllaax ya qultu bala Allah ah loolu nga xam ne amul lu ma ko yemale mu ne ko fa anta zawjati fi imraati yow sama soxna nga ci àddina sama soxna nga ci àllaax ya boobu xaajal jël na ko xadis la bu wér yeneen ñi nii ba léegi ci ay wane ci wane yem ci sabal maanaam ab yaa amaan mu ne yonent bi dafa defal am na ah yéen tey yu laaj salaat la mooy comme yu laaj na ni ci wàllu tànn léegi ñu dikkee ba ne yonent bi koo gën a bëgg ci nit ñi mu ne ah mu ne ko waxuma ci góor ñi de jigéen ñi laa laaj ci jigéen ñi de góor ñi laa laaj mu ne ko baaree mu ne ko askan mu ne ko ah askan mu ne askan askan mu ne ba mu yaag na xaaral na ko sax bala moo lim di ma mujjee dindi ma kan nga gën a bëgg muy lim di lim diw Aboubacar teg ci Omar teg ci diw teg ci diw teg ci mu ne moom yaa ko mën a xaaral ma yore ko laaj ndax comme soo askan rek muy xam diw dama dugg ba dee mu ne bala ma suñu dëkkal ko loolu moom du ma ko dégg ko xaar ma xam yemale foofu laaj kon aay ko si boppam dafa amul makaan bu ñu ci xol yëpp xalam li ma jeexale mooy mbokk ñu xam ne li ci bind yu mel nii li ci xaaxaat yu mel nii léegi pour yéeme tax koo jóg wallahi rabbi naa doon tax koo jóg dégg bu yéen di tax koo waaye dégg bi pour ah tey xanaa day tax mu tuddee loolu tax koo jóg xam nga lu ko tax a jóg dégg bi dégg ndax moom seytaan ci boppam woo déggee lu am ak ndey léegi da nga jël loo élan li ñu naan ardawu daawu di doon da ngay jël élan pour commencer gis nga bala ngaa jël élan benn dër si ñëwaat bala ngaa jël élan benn dër si ñëwaat gis nga su bare dara suy lay dara doo ko àttan doo xam ni ay chi ala ay chi tabba ci la tàmbali donc waaye ak solo waaye bokk ci li rawoon ñëpp mooy saa bu ñu daan dégg lu ñu gën rek bu ñu jugee naan tey am na aw kaay loolu war na am naa kaay am naa kaay kaay bi mooy rek mooy dégg loo xam ni jëfe day bu ko toppee njëriñ rek moo mooy dénk faram dénk mbokk yi xam jëfe na mu gën a yitte ni yeneen lu dul xam jëfe yu mel ni saa xamee seetaan day bëgg dox sa diggante gi nga lekkal day bëgg dox sa diggante gi nga jox say doom maanaam di wax day dox ci diggante nga am marfan la bi kam subhanahu wa taala yooyu yëpp ay mbir yoo xam ne lay ay aaqil ay gàllankoor léegi nag su ma jógee li ci nit ki tey bala ma di ci la la yëf yàlla waxoon ni bokk na ci melokaan jigéen ñi àjjana yi ku ci joxee borom kër ba borom kër yi mer mu yëg ni tey incha allah bi mer na allahu akbar xam nga lu wax wallahi la aduqu rumban hatta tardo fas yéene ma gëm xefa suuf du fekk ci mu kaw lu dugg yaa nga baal allahu akbar comme que xol bi ñu ko jaar la adu ko bombal fekk taw bi fekk te fekk suuf bi nelaw bi ko jaar xasta barba lu dul yaa kontaan ba pare nga jël ab loxo fekk loxo ngay joxe fekk ko sa loxo kon daal dama bëgg wax ni xam jëfe ci boppam kenn ci magitar lay wax ne xam jëfe bal sax da lay dolli xam-xam la mu ngi ñaan suñu borom defal tawfiq yàlla yàlla defal tawfiq bi ak tawfiq bi def ñu dégg toog qaala allahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain